bokk taalibe yi góor ñi ak jigéen ñi maam ñi ak ndaw ñi gan ñi ak dëkk yi xale yi ak wëllëre yi ñu woote ak ñu wuy si ak mboolem kilifa yi dina yépp sëriñ Saam jaar si seen tur noo leen di nuyu noo ngi leen di siyaare noo ngi leen di baal àq nag jotaay bi yàgg waaye nag yiw moom du doy kon lu jotaay bi yàgg yàgg yi jàpp lépp yiw waaye du tee nag ñu ngi leen ci baal àq bu baax a baax di sant bu baax. kilifa gii taxawal loolu jël kàddu bi sëñ Modou Kara nga xam ne li ci jëmmoon rek la ko topp moom yëpp man ci moom laa ko kon bu wëññi koo wax ne sama rakk bëgg naa mu jël ma loolu am baaxul te damay wut juróom-ñeent doole ci mbuubu xam ne day soññee di sax bu baax lañ si la ko ci kàddoom bu rafet moom ci teewaayam bu rafet ak njabootam yëpp wax dëgg yàlla bis bi bu doon doole la rek ci waxtaan ci ñun muy lim kilifa yi waaye naa sëñ Sam lim na leen romb ne laa dul ñu tuddaat beneen ko ñu ngi sant bu baax sëñ Cheikh Faty ak mboolem sëñ sëñ Cheikh sëñ di sant Sëriñ Sam Seck am njaboot Cheikh Aliou Seck di jaaw gépp di sant yi Sëriñ Cheikh Aliou ak ñun seqal na gën yëpp di delloo si càtte ci sunu waajur sunu baay sunu xarit yoo bàyyi seen fental te gis ngeen ñëw na fi ci bool ñëw na mu sax di sant bàjjen biñ koy jaal mee toog nga moom it lii jaal ñoo ngi koy sant bu baax di ko siyaare te di ko nuyu di wax ni nag war nañoo sant yàlla bu baax bi nu soo borom bindee def na ay ay ay doomu euh, bu ko neexoon man noo def ay mala bu ko neexoon man noo def ay gulóor baa mu def ñu kër wala mu def muy naat bàyyi ginnaaw bi ñu jëfandikoo waaye mu def ni doomu aadama lu nekk xeexeer sëñ dinaa moom ma wala noo sant yàlla bu baax ci loolu dellu sant yàlla bi ñu yàlla boole Seex Xaadim ni man damay wax lu gën a bare ni dogal sax sëñ Tuubaa man nekk jullit parce xam naa du sotti kon bu ko suñu borom booleeg Cheikh Al Khadim borom lëggéey bu rëy bu metti bi borom tukki bu yàgg bi borom njëriñ lu bari yi te ñëwuloo te mboolem na tukki bi metti metti ak la muy yàgg yàgg ak nattu yële bi ñuy rëy suñu jënd boobu nekk tax ñoom rek la doon defaan ñoom rek la doon defaan Sëriñ Tuubaa bi mu seexalee Kajoor seexal Bawol seexal saalu nag mu ñëw mu daal dem Kajoor mu faawaati Kajoor na baa man kat yaa dama woon Kajoor kiraama xanaa ku amul kiraama da ngaa ñëw Kajoor te bëgguma ëllëg ñu ngi ñett ci histoire di wax ne moom nga jóge woon dem ci dëkk bu metti boobu waroon naa dem Bawol mu demoon Bawol Bawol nga xamaa ne waa fàtte woon yaa noon Bawol Bawol dëpp koomu barke xanaa demul damaa demul Bawol te bokkuma may ñu nekk ëllëg naa Sëriñ Tuubaa ba mu dem ci nattoom yu métti yi ci moom ñu la bàyyi ko mu ne naa dem Saalum mu dem Saalum mu ne ko hee hee desaay naw naw la gàtt du ma ko nangu te yaa noon Saalum Saalum salaamatu koomu jàmm xanaa dangaa demul Saalum mu dem Jolof jolof nangu muy seet weer yi weer wu mu dem rek mu gaar weer wu dem rek mu gaar ba ci digg di gën ba man de li nga bëgg suñu woo gaan waaye dama bàyyi ba sama kàttan ma sëkk te wàññi boobu wàññi ko woon ba ma fukki fan ak juróom-ñett soo bàyyi koo ci man de su la sànnee foo bëgg sama nattu àgg fa dama faat suuf yi gaantu na jolof nanu la weer yi gaantu nan digg nanu la mu des bis mu mu tàmbalee ci altine mu ko dee def ci man la yàlla yonent bi gën a adduna ci man la dem yàlla boo bàyyi ko ci man dem ci tiisu tool moom bis bu mu mu baax man de sañ tamay maaw la lim gàntu mu nu ko nag ba ci gaaw gaaw na waaw daal di nangu bi sëriñ bi bàyyi koo foofee ci natt ko jaar fu bari daj lu bari def lu bari liggéey ñëw yi añi liggéey ñëw doomu taalibe yi añi liggéey ñëw doomu Sénégal añi kon sëriñ Tuubaa war nañ koo delloo njukkal suñu jëm mooy li si am sëñ Mudu Kara léegi doon wax suñu jëm la mënuloo ko cee delloo lu weesu pas-pas pas-pas kese man pas-pas tax na ragaluma dara pas-pas tax na ma def dañ maa war tax naa ma def ni wóorumaa ñàkk dara pas-pas tax naa ma def ne man lu sama xel nekk rek daa te gis nga nit dafa war a laajte boppam natt boppam ba xam moom mooy kan parce que boo nekkul kenn ci sa bopp. doo dem fenn ba nekk fa kenn kon nit dafa war a xool boppam jëmmi nit ki bu mu xeeb boppam ci taxaw boppam ci dundam sur le plan économique et le plan alors parce que chaque la sauce commence à l'autre sauce nit bu mu xeeb boppam li ma la doon waxoon mooy dama leen a waxal fii nii leen sëriñ Tuub sëriñ Maam Cheikh Béthio lamb na pas-pas ndaw yi xool seeni jéego xool seeni jëf pour biir leen sëriñ Tuubaa kenn ku nekkoon sa pas-pas loo am ci sëriñ bi moo la ko may loo ko loo ci ñàkk moo la ko am du man rijaal sekk maa la ko may ndax li may yàgg wax toujours rek dañoo tàmm di wax liggéeyal sëriñ Tuubaa waaye liggéeyal sa bopp sëriñ Tuubaa lañu sa bopp ci sëriñ Tuubaa ndax Sëriñ Tuubaa yow taalibe bi li ngay du ko fayee boppam du ko fayee doomam du ko fayee sëtam yow mi ko jox itte nanu jox itte liggéey liggéeyal sunu bopp sëriñ lii fàbbee ci jamono ji bari na lool liy soppee xel bari na lool liy soppi jikko bari na lool liy na lool waaye noonu yàlla na nu Sëriñ Tuubaa fàbbi yàlla na nu ab loolu nag bu ko dee wax bëgg kenn ku nekk ci sa jëm bi nga njukkal sa bopp nga njukkal Sëriñ Tuubaa sa bopp ci pas-pas ci jub ci maaro ci góor ci jom ci nangoo lëni bañ a for bañ a yàq te sa lépp di lépp Sëriñ Tuubaa soo demee ba nga xam ni lii du am bitre lii du am batterie ji nga. waaw kon defar leen beneen. allah. allah. waaw jërëjëf. naanu góor ku mooy naanu góorgóorlu bu baax fonk sunu kilifa yi man de saa su nekk sama xarit sama sëriñ sama wëllëre Cheikh Moustapha Mohamed sama bët ak sama xel bu teg bu mukk ci jëmmam te di ko roy ci aw doxin ci aw doxin nit koo xam ni kenn rusul na Moustapha Mohamed Salou Seye amul benn bàyyi bu rusul Moustapha Mohamed sama doom amul benn maam bu rusul Moustapha Mohamed sama sëta amul benn taalibe bu rusul Moustapha Mohamed sama sëriñ boobu am fekk nañ man keroog maa fa jógee naan sëñ bi daf maa dugal àjjana te deewu yàlla xam ndax keroog laa bi bépp doomu aadama bu ma xool ak fekk ci yow fee laa lay doomu aadama boo xam xool naa la gis ki ñaan ci yow fee doomu aadama boo xam xool naa la gis ci yow te laa lay teg. bépp mu ma xool. gis ak rabbaat ci yow. te laa lay teg. sëñ bi nit mu nekkal foofu. kenn ku ne naa façon nit ña mel nga teg leen fee. na nga a mel na ko mel. waaw nga war a doon fa nga war a àgg waaye ñooñu dañuy gàllankoor. yàlla xam na waxtaan woon waxtaan man ca laa jëlee idée boobu mereetuma kenn xulóotuma waxuma la te iñaane nit defanteetuma kenn ma daal li may def mooy doon ab taalibi bëgg lu baax fas yéene duma tàggoog sama ngor kenn du ma la sama jom kenn kenn kenn du sama ngor sama jom ñoo ngi sant nag bu baax jëmm ji fi toog di boobaan ngay daal ndax yaa ñaare ñu yoroon ñu bi te ban lu boole léegi ko te xam ne amul ak amul di ñëw di seeti ah loolu nag luy def na lool laaj boobaan ko waaye dèjà li ma lii la si ci mën naa woo si ceexal dara du ko dindi loolu mu ne leen dara bëgg woo xam su génnee yàlla dana ko teg ci loxoom bu ko si gisaat loolu moo ko wax rek ne lay demee moom nan lay demee kon yow it noonu la dinaa doon liggéey ci yu mel noonu ci programme bi kër gi ak kilifa yi fi nekk yëpp nga xam ne ay seexam kenn ku ne am di dem programme bi ñu ñu demee nii yéen ñu ngi lay ñaan nga def topp sa nga loolu pour nga dégg nga dégg Sëñ Tuubaa xanaa ko ci artiste ku nekk faa yem de jëlal ko la ba ñëwee lu lu lu baax li def ci ñoom mi ngi lépp fii mi ngi ni yéen nag ba ñëpp jot baax a baax baax loolu koy ñaan bu baax. wallaay la ci nag noonu doon soññi alalu jaal gépp góor ak jigéen mag ak ndaw bàyyiwu kenn gis na bu seenu tàkku gis nañ bu baax seenu dow gis nañ bu baax seenu jëf ndax lépp lu jóg lu rëy rëy rëy rëy rëy maa ngi koy tàmbalee ci koor ga wéeru lan la ak noonu la tey ba toll teg ci màggal seqal ni secrétaire gii ak ñëpp toll teg ci màggal bu njëkk ak ñëpp toll teg ci màggal bu mujj ak ñëpp toll teg ci euh, gàmm ak ñëpp ak lan toll teg ñëw ñoo koy ba loolu nag benn ndaje ba lenn mën a doon loo xam ne sama dëmëra dara bopp lépp ñoom ñoo koy def loolu nag moo dajee war nañ koo leeral kilifa yëpp ñu dolli cee ñaan bu baax war nañ tey leeral yëpp noo ngi sant ñëpp noo ngi gërëm ñëpp di ñaan nañ ko fekk ba gën a déwén ñëpp yokk kenn bañ a wàññi am kenn bañ a ñàkk la bañ a tawal di barke ci Seex sant moom mënut a weesu sant te li ma leeral da di wax toujours ne sama projet bi maam Cheikh Diagne ci kaw du ngeen soppi waaye yéen ñii ànd ak yéen maam Cheikh bu ci kaw du ngeen soppi aw dof ndax la ngeen a def lépp yéen a koy def la ngeen wax lépp yéen a koy wax kon noo leen di sant noo leen di gërëm noo leen di béré noo leen di ñaan di ñaan Sëriñ a natt natt la fekkul ñëpp ndax mu fekk li sa defal la lu kawe sa njort lu gën ci yow loo xamutul ba di ko ñaan mu wóor na ko teg ko ci seeni loxo jigéen ñi ñu ci ami borom kër yàlla na leen yàlla jagleel seen dërëmi borom kër yàlla na leen defal ak njabootu borom Tuubaa sëñ Mourou Kara yéen a kilifa fi ñoo ngi leen di ñaan ngeen fii ñu nekk ba te mu nekk njabootu Sëñ Tuubaa ndax loolu rek mooy seen mooy seen saas sëñ Modou ngeen jërëjëf rafetlu na teewaay bi sëñ Abdou jërë ngeen jëf baax a baax a baax a baax fa ajrakum Allahi azza wa jalla wa salaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh seen mbokkum jullit seen mbokkum taalibe Cheikh Ndiaye Seck Dóor Mbarba jërë ngeen kenn lañ ko kenn lañ ko.